may ko tawfiix ak taysiir bu mu mottali ko di sant yàlla ci bés bi nga xamante ne mébét nañ ko ba yàlla may ñu ñu fekkewaat ko fekkee ko tal ko te man ko jëmal ñëwoon tey fii Mbàkke ngir ziar la gannaaw bi nga xam ne ñu ngi doon jëmbat garab te mu méngoog ndigal gi nga joxe woon soññ ci taal bi bu baax a baax pour ñu am ci taxawaay bu mat sëkk ñu woon sénégalais nag ay fan a ngi nii ci samedi gu njëkk ci weer wu ne ñu génn bokk setal sunu réew ministre yi di ci génn directeurs généraux yi di ci génn première ministre di ci génn man mii président de la république ma ci génn di bokk liggéey gi ak sénégalais yëpp waaye bii yoon nga xamante ne nawet ñëw na dañu ko jagleel gannaaw gu ñu seetalee démb ñu teg ci bés bi tey di bésub ñeenti fan ci weeru ut muy bés boo xamante ne dañ ko jëmmaloon ngir di ci saxal garab at gune ne ñu woon nag sénégalais yi ci fan yi di seetal ñu boole ci tamit taxawaay googu ci jëmbat garab yi Euh, donte at gu nekk dafa am ci dëkk guñ koy defee ren gi ministère de l'environnement ak de la transition écologique dafa tànn Touba waaye ku xam lan moo tax ñu tànn Touba tamit dara du la ci bett ndax gannaaw bi nga santaane ñu am taxawaay boobu daf fi am kuréel goo xamante ne taxawaayam dañ koy rafetlu bu baax a baax muy Touba ci kanam ministre bi wax na bu ñu waxtaan ñoom fekk ñoom am nañu juróom euh, ñaar fekk junneeg juróom ñett ci ay garab yoo xamante ne ñu ngi euh, pare pour ñu jëmbat leen waaye leneen li ci tegu tamit te ñu lay ci sant bu baax a baax bu baax a baax a baax ñaan yàlla tamit mu gën laa may wér yaram gën laa may gudd fan ndax euh, bi ñu ñëwee fii nga barkeel benn ci garab ay taalibe yu bari dañ ko def seen yëfu bopp di joxe addi garab ba tax na li waa Touba kanam ci am jotoon am ci ay garab te ñu jox lim ñu joxe lim gi sànq dafa gën a bari mu doon taxawaay goo xam nag du taxawaayu euh, xëy na loolu gën na fësal bés bi gën ko jëmal ba heure bu ñu toog ni fépp ci Sénégal euh, nit ñaa ngi jëmbat garab kon ndigal gi nga joxe woon méngoog nag li nga xamante ne moom la gouvernement bi di def ñu boole àndoo ci sénégalais yëpp xooluñu ci ñi bokk ci tarixe gi wala ci tarixe gële xooluñu ci ñi bokk ci kuréel gii wala ñi bokk kuréel gële muy pouvoir muy opposition Sénégal lañu woote nañ ci jëmbat ay garab saxal ko ngir defar suñu réew xëy na nag doonte euh, xaw na xaw na gàtt ministère de l'environnement am na lu mot ci juróomi million ci pépinière ci ay garab yoo xam ne euh, seddale nañ ko te at yii di ñëw bu soobee yàlla bëgg nañoo dem ba li mat euh, fukki million ci ay pépinière ci biir Sénégal yëpp kuréel yi mel ne Touba ci kanam nag ci sa ndigal dañ koy joxe exemple ci yeneen gox-goxaan yëpp te dinañ ci gën a waxtaan ak ministère de l'urbanisme et des collectivités territoriales ci ñu fexe ba commune bu nekk ci ni ko Touba ci kanam defee fii lëkkaloog ci mairie Touba ci sa ndigal feneen tamit ñu fexe ba commune yépp am pépinière boo xam ne dina toll noonu wala mu ëpp ko waaye ñu fexe ba commune bu nekk ci buñ ci dee dem fekk ne yow waajaloon nga bés bi ni ko waa Touba ci kanam waajale ndax day tax rek li ministère de l'environnement de def bu ko citoyen yëpp sénégalais yi feeloo ci loolu dinañ xam dinañ am lu ñu bëgg te joxoñ gi nga ci joxoñ digale ko njëriñ rek a ci nekk ndax ci njëriñ rek ngeen ñu ciy woo kon ci cant gi lay sant euh, noonu la ñuy sante ñëpp ñi nga xamante ne nañu ci woote gi ak fépp fu ñu mën di nekk te lii ñu dooraat ndax mos na fi am ci weer wu ne sénégalais yëpp bokk jogandoo xam na réew mi ñoo ko bokk ni ci président de la république amee responsabilité ci liy defar noonu la citoyen bu ci nekk ci foo féete ak ci foo nekk noonu nga ci amee responsabilité pour defar te xam nañu ne ci loolu ngeen ni ñuy ñaax ñu den gën a euh, yaakaar ci sénégalais yi gën leen déggal ndax woote moom yàgg ngeen ko def wane yoon bi yàgg ngeen ko def te xam naan sénégalais yi déggal nañu leen moo tax lu ngeen ñu ci gunge rek ñu leen di gën a tàllal loxo ngir ngeen ñu gën ñu gunge wat loolu moo tax ba li li ñu sumb rek dinañ ñëw ci yéen kilifa diine yi gën leen ko leeralal ba ngeen xam fu ñu bëgg a dem ndax bu ko defee suñu kàddu néew na fu mu egg lool waaye yéen fu ngeen wootee ñu déglu leen xëy na dina fekk projet bu ñu tey nii sénégalais yi gën cee jàpp ndax njëriñ rek lañ ci am yaakaar ci réew mi kon sant nañ bu baax a baax di wax na tamit euh, jublu nañu ci xew mu mag muy magal bi soobee yàlla dem rek premier ministre mu ngi woon sama kër ba daanaka minuit di waa ji jot euh, te lañ doon waxtaanee yëpp magal gi la mooy naka lañuy ñuy fexe ba ministère yi nga xamante ne gën nañ leen soxla ñu gën a baral seen taxawaay ci liy defar lépp ñu mën a booloo def réunion ci njiital première ministre ba ci fànn yëpp muy ci wàllub paj mi muy ci wàllub ndox mi muy ci wàllub sécurité muy ci wàllub leneen ak leneen ministère yi mu gën a intéressé ñu toog waxtaane ci benn bés ñëw seet si kilifa yi bokk ak ñoom waxtaan xool li war ñu bu ko defee ñu arrêté solution yi nga xamante ne day ñëw ne gouvernement bi day xëy na ren gi xaw na gàtt sax te nuñ ko waajale lii mooy taxawaayam te taxawaay bi yëpp mooy képp koo xamante ne mu ngi ñëw ci bés bu mag bi nga xamante ne sëñ Touba rek ko moom ñu mën a def seen magal ci nu mu gën a àndee afiya ak ci nu mu gën a àndee ci jàmm ak ci mucc bu ko defee yeneen at yii di ñëw dina fekk ñu gën mën a waaj ba problème yi am gën a neew lool lool lool lool ndax euh, farata la ci ñun taxawaay boobu ñu am ko pour gën a euh, ñongalal gën a yombalal nit ñi seen ñëw bi fii ci bés bu mag boobu ndax euh, liñ ci def rek xeeb nañu ko liñ ci def rek xeeb nañu ko te dinañ ci góorgóorlu lépp suñu këmtalaay kattan ba fi Sénégalais di jóge biir réew ak bitim réew ñëw ci bés bi mu bu ñëwee mu gis ne que lii ko état warlo ci garantiral ko mu jaamoo yàlla nu mu ko tànnee mu matal ko incha allahu rabbi kon lii laa bëggoon rek euh, yëkkati ci kàddu Mbàkke di la sant bu baax ci dalal beeg taw feex bi nga xamante ne biñ duggee Touba ba tey yëg nañu ne que waajal nañu ko te moom lañ gis ci lépp salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi allazi li haza wa kunna lan nahtadiya lawla an hadana allah wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi yëkkati suñu kàddu te ànd ci ak xeebu ko te ak ñàkk ko mate ngir jottali la kàddu sëriñ bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mottali naalam yi nga xam ne am na ko ci lislaam jëpp waaye naa li xam ne am na ko ci liggéey sëriñ Tuubaa yëpp suñ borom may ko kàttan ak ndax dundam gépp soxloo ci dara lu may liggéey la ko sëriñ Tuubaa dundam gépp soxloo ci lu may jaamu ko yàlla kon comme kilifa gu kilifa war ngay xam la yàlla defal nga topp ci ginnaaw di diglu ay ndigam tey fexe ba lépp lu muy tere yàlla musal ja kon ñi ngi yëkkati kàddu yu nuyoo ak kàddu yu dara jàmm di ko jëme ci ki yàlla teg ci boppu réew mi mu nekk président de la république Bassirou Diomaye Faye di la jot jottali kàddu sëriñ bi ak nuyoom ak cantam ak ngërëmam ak mboolem délégation bii nga àndal bépp sëriñ bi di la xamal ne ginnaaw bu mu la dalalee ci Touba ni ma la ko waxee fii rek ñu ngi lay sant leen ñaanal bu baax yaa ñi nga àndal liggéey bi ndax xam na cër bi nga sédd Touba ndax bi nga fi gëjee yàggut bi nga toogee rek fi njëkk a jëw kon na xam nga lim doon ci réew mi xam nga fi mu toll ci mi bis bi itam. yàlla def muy bisub mbale ak njëmbat boo xam ne da ngeen ko xalaat di ko def at mu jot ak weer wu jot yàlla def it màggalu Tuubaa gu mas a jot sëriñ bi daa daa def yàlla def na sax moo ko njëkk a taxawul boppam 2008 newoon ci kër Sëriñ Tuubaa gi di ko taxaw ba ginnaaw mu teg ko ci loxol Sëriñ Cheikh Abdou ñu ànd ko moom kon nag bu yàlla defee yéen ngeen am tawféex tànn Touba ni nga ko waxee ci si biir kàddu xam ngeen li tax ngeen tànn ko ndax lu kiimaane am na ci ndax tubaa boo demee ci xaddis ba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne Touba sajaratun fil wax ne masiratu mi'atu amin nee na garab ga rëy na goo xam ne doxub téeméeri at mooy keral ñépp wax ne la lafay la fay ma ma ciy jugee rek mooy dundal ak maam yi mooy dundal ñépp seen seen seen seen biir kër ca la ñu sol ak def mooy Touba moom la ko Serigne Touba tudde garab gu ne ci àjjana la kon nag bu yàlla defee ngeen tànnaat bis bii muy ci senegal gépp waaye nga tànn Touba defe ko fi xam na loolu ne fonk ngeen fonk tuba ak yëggu ngeen yëg Touba moo tax. te ba ngeen toogee ba tey seen seeni ndaw ñu ngi fi jóg guddeeg bu cëg di gëstu di xool lépp loo xam ne jàpp na ne war ngeen ko mën a jàppale sëriñ bi ci liggéey kon mi ngi ñaan liggéey bi nga xam ne sumb ngeen ko te neen xelam dal na ci li tax xelam dal ci mooy gis na ne seen yitte jëpp liggéey la lu ma ko waxee ci laam ñoom seen yitte jëpp liggéey la waaye neen li ko ci gën a ñor rek. mooy diine ji nga xam ne gis na ne mi ngi ci yéen nee na kon nag sant ak gërëm ak ñaanal la rek yàlla dimbali leen ba yaakaar ji nga xam ne réew mépp am nañ ko ci yéen suñu borom may leen kàttan ak wér ba ngeen mën ko jëf yàlla def na it bi sa ndaw ministère environnement ñëwee ci moom Daouda Ngom yëgal ko ne ko fas na yéene njëmbat li ñu def ko fi fa saasa fekk na la la la ma wax ne ma naa jox ndigal waa Touba ci kanam ñu ànd ci yéen fekkoon na naka jëkk nag sëriñ bi ba mu ko ci njëlbeen bañ ko mosaan def sax moo daa demal boppam di ko jëmbat kon xam na li njëriñul garab kon nag jàppale googu ngeen denc jàppale ngir fës ko yéene ànd ñoom ak ñiñ ko àndal rawatina commune Touba Mosquée ci njiital suñu Abdoulaye Ka ak suñu mbokki Baye Fall ci njiital sëriñ am di suñu Modou Mbenda mi nga xam ne moom suñu seex mu suñu dëddi fi ma tuddoon léegi ñoo ko àndoon ngir bëgg bis bi mu bañ doon rek misaal moo xam ne dañuy jëmbat gerte rek bàyyi waaye bal ngeen fee jugee wala tey ñaari fan ñetti fan ñu jënd ñu jëmb jëmbat ay junni junni garab na tàmbali nañ ko yëpp waaye kon mi ngi koy rafet lu baax di ñaan yàlla àggal ko jàmm ba doon njariñu réew mi doon njariñu àdduna sépp